drapeau saltige bu mag bi sunu yaay ndey Fatou Ngom xeex wala lan armée bu ngewel ak Hercule inde may moytu leen door mu daanu armée bu ngewel Hercule leen wan ginnaaw Hercule daw na jël armée Hercule daw na jël armée da koy door di ko wër war ko di ko door eh Hercule na ko duma la bàyyi armée bu ngewel fi nga dugg baaxul armée bu ngewel war nañ la ndombo eh war ndombo penalty bi làmb nga def loolu wóorul ay waay Hercule na armée armée bu ngewel ndombo armée bu ngewel ana sa armée ya ana pasokaaya ak lacrymogène yaak liif ya eh foo doon xool nu wër la ndombo dina ca génn wala da cay génn de wala da caa bëgg de génn na ca de waaye armée ngi armée bu def nañu fi militaire Hercule Hercule SK Hercule SK laa ilaaha illallah bi combat armée bu ngewel mii day daa mel ni gis liifam akil la kuri masanam waaw waaw waaw Armée Général Malika ci làmb wax na dëgg loolooy làmb daan ak ba yàgg na de combat baroon naa jeex bu yàgg armée ak Hercule na ko armée door na de waa armée boo xoolee loolu da koy arrangé léewtoo bu sore boobu parce que moo gën a njool bu sànnee loxoom day dal arène bi nag door na ko de gis nga boo xoolee xeex bi armé lay gën a arrangé fi mu nekk nii parce que daf koo sori te moo gën a gudd ay loxo Hercule li ko arrangé mooy combat rapproché ndax li mu amoon sax mu mën koo amaat mais combat distance bi ci xeex bi ci kaw ah bëgguma ko ci yow armé walla Hercule bokk xam nga liiru jaan noppee na ñëw lamb de. bàyyi liiru jaan. da ngaa mel ni ku may liiru jaan kilifa la. lii liiru jaan bu nee cur fitwaram bu nee cur lii moom du sori. liiru jaan ñi mu daan bëri na. te man su ma nee cur dama lii ma fàtte ma daan. liiru jaan ñi mu daan bëri na yaawu ja. liiru jaan kan la daan liimal ma leen. liiru jaan mbër mu mag la. dama ne liiru jaan kan la daan. ci wulli la mujj a Gambia. benn ndam. yow fii yam bu yàggul. par avant tout. te nga liiru jaan. liiru bu liiru bu nee cur. waaw lii moom du sori ndax victoire bari woo. moy ah, dégg naa mooy monument Guédiawaye de. man nag sama nee cur naan lii ba fàtte ñu ma limbal ma ñi daan. tey bu ñu soow. yaa ko daan. bu dee yaa ko daan. Zulbale numéro yaa ko daan. sëriñ yaa ko daan. jati jati. yaa ko daan. dafa italien. yaa ko daan. bul yaa ko daan. i hop bu yaa ko daan. ay kon xamuñu ma daan bari na. ay mu ngay bëgg a bari. déggoo ma moo tax ma ne la am na ñoo xam bu ñu lim. bu ñu nee cur. waaw lim di sori ndax seen ndam barewul. waaye liiru kilifa la. man na su ma nee lim man na su ma nee cur. lim. ba fàtte ñu ma daan. ca yaawu jaar. xam nga kenn ku ne dama laa limal par benn benn. mais que mi lay gaynde. waaw daan naa ko neuf fois. neuf fois gaynde neuf cinq yëmb cinq fois yaaw jël bu kolo ñaari yoon saret bu yàqu ñaari yoon dafay tëlee ñaari yoon jënd jëndi yoon ibu bu njaarim benn yoon bay faal bu njaarim benn yoon kon man li ma ba daan ba rek ak xaalisu Gambie Jolof ma dem Gambie daan fa way way fàtte na mburu Gambie da waay naa fa ñaari ndam si mburu Gambie na ko Hercule daan nañ la daan nañu Hercule action la doon def ñu wàcc ci koom armée daan na ko Hercule jógal. xam nga kon loolu moo tax ma ne la su ma liimee. waaw damay liim ba foto ñu ma daan. waaw bëri na samay morom yoo xam ne bu ñu nee cur. seen lim di sori na seen ndam ah, bariwul ah xoolal ah, ko mu feeñ waaye ah mbër day saf xorom. kon kam nga lam la wax. waaw damay lim. waaw ba fàtte ñu ma daan. waaw déggoo ma de. ñan ñooy say morom yow. bari na kan ak kan. bari na. xam nga wàllu animation lamb man la woon yaawu jàll mais li nga def kera liiru jàll est ce que loolu jaar na yoon ma ne laayi leegi laa moo xam ne rasulullah sallallahu alayhi wasallam gaañ ba ko sàcc si man ma indi leen ma maa ngi sant sang-sang yi kon donc loolu na bu ko kenn récupéré mais wayuma li nga def liiru jàll ce que jaar na yoon kera non dama ko brosse mais loolu bokku ci ab sër moom la jël sàngoo ko di wër géew bi boo yëmbal mbër mu dangereux la kii xel lay bëre bopp bay bëre moo tax Mor Kang na xam na am na adversaire tey de lu mooy combat spécial bi wallaay combat bu doy waar la moor Kang Kang a ngoongu am na lu ñu koy takkal ca tànk ba boo yëmbal ngay seen na la ca kaw mu yor bal bu xonq bal bu rouge moom la bàqu bokku di dox moom ñaajo maa ngi lay ziar armée bu ngewel waaw Babacar siyaar naa la bu baax di nuyu caméraman bu baax a baax waaw di leen jox seen wàccuwaay bu baax baax a baax di wax ne arba bu ngéwal doomu doomu géwal bàyyi nii quoi waaw mais combat bi xaw na yàgg mais am na benn moment boo xam ne dañ la woon ndombo ba ma ba ñu ya ñu bëri yaakaaroon ne combat bi jeex na nga génn ci waaw boo gisee war ndomb bi damay kontaan sama grand frère Jordan Ndab daan ñoom Boy Dioum ñoom Thiat xam nga di kontaan sama gars yi ñu may teg lu métti moo tax bi ma wër ndombo sama xel dafa dal comme dama jàkkaarloo ak moom moo tax ma génn ci facilement quoi. waaw noonu mais ni nga ko daan mën nga dama ko bàyyi combat parce que sama manager Mame Niaw Ciss ak sama gars yëpp ñoom Dab Daan ñoom Grand Wali Faye ñoom Joroon lépp loolu ma digal ni ma taxawal nga bàyyi ko combat ak sama supporter yëpp moo tax ma jël sama temps bàyyi mu def lu ma daan ko quoi. waaw maa ngi ci 6 combats 5 a moo yor ngemb lu verti Mor Kang Kang ngeen jàkkaar lool école de lutte Cheikh Mbaba kii war a yëmbal waaw waaw combat spécial drapeau Pape Ndour drapeau Pape Ndour la ñuy bëree dafa mbër génn na de ak jàllaa bi bu weex dafa mbër génn na ak jàllaa bi bu weex Mor Kang Kang arbitre soufflé na Mor a ngay ñaan de Baldé Mor day ñaan noonu Mor day ñaan moo tax bare amakul à boo yëmbal à droite ñaari mbër taxaw kabar na ko boo yëmbal kabar de wala lool duy kàbbar xanaa yi kàbbar moom yan genre kàbbar la ci mën a dégg bëri na de waaye baar bi suuf lee tey daal di ngeen laale de su ngeen bëggee bëre di ngeen laalante faw seen loxo yi jonjoo mbagg yi jonjoo ay waay Balde bu leen jaawale bii komba suivre leen combat bi bu baax a baax xalaat naa jël bu am ci de wallaay am naa ci yaakaar Boy Yeumbeul Mor Kanga Mor Kang Kang Boy Yeumbeul Mor Kang Kang a leen woon ginnaaw ba tey nuyu naa koy suivre Equivox TV waaw Mor Kang Kang ngay avancer tuuti Boy yëmbal mel ni ku koy ëkku loolu mooy maa ngi ne jàkk di la xool Mor am na lu mu bëgg daa mel ni jëli la bëgg xawma ma nag ndax dina fa fekk la muy jëli walla bu ko fa fekkee ndax dina ko mën a jëriñoo walla déet kon de su ko jaawale ci biir combat Mor Kang Kang école Cheikh Mbaba booy yëmbal jóge yëmbal drapeau Pape Ndour ñëwaat nañ ca géew ba waaw day bañ lu lëndëm xam naa. xëcaat na ko mu ñëw ca géew ba Baldé lii combat spécial la ab drapeau la gul ci ñaar ñii dara xewagul dara xewagul xeex am xeex amagul congu amagul parce que Mor am na lu mu bëgg waaw jëli la te boo yëmbal daa bëgg buy jël si mu raté muy jël si. supporteru Mor Kang Kang yi day taal nañu fi mi seen ba waaye loo ci mën ñooñu ñooy ay supporter ma taal loolu avertissement boo yëmbal boo yëngal am na boo yëmbal am na lu mu tekki takk ko ca ndig dugal ko ca kanamu ngemb ndaysaan ñaari mbër nga ca ñaari mbër yaa nga ca eh Mor Kang Kang jël na ko daan na ko oh eh Mor Kang Kang da koo bett boo yëmbal xool supporteru Mor Kang Kang yi booy yëmbal dañ koo bett bëre bettee ginnaaw nga takk na rib ak suuf xool mi mbooloo xool mbooloo Mor Kang Kang mi xoolal Mor Kang Kang waa fu mu jëm waa fu mu jëm waa fu mu jëm waa fu mu jëm waa fu mu jëm waa fu moor jëm waa moor ku muy seet waa fu moor jëm waa fu moor jëm e baay bara waa siyaar naa la Babacar. maa ngi lay siyaar. muy delloo siyaar bu wér Babacar. xale bi yaa koy tàggat. waaw maa koy tàggat depuis mu am 18 ans. mais ni mu bëree tey. waa dafa am qualité. liggéey na dafa liggéey doole mu ñëw ñu teg ko ci yoon. dafa nangu di te dafa nangu entraîner. kii bëtam xoolul kii. mais daa jël léegi mu jeex. non même ñetti son la naroon a tenté bi mu ko jëlee daf ko wañ mu bañ mu mu jël loxo ba mu doon sam pour jéem a def rétention tournée mu jël loxo ba tu euh, sarse ko yéeg ko puisque booy bi dinaa la wax lu nañ ko bàyyi xel day liggéey. nañ ko bàyyi xel day liggéey. incha allah. koy bàyyi ba da kang daan na boo yëmbal jël mu ko daana rëy balde moor kankang jël daan boo yëmbal a rëy da koo di ko bañ mu bañ mu yokku ko bas ko mu toog waaye bëre bettee eh moor kankang bàyyi leen ko xel Bas! cey làmb eh, Mor eh. Mor Ziar ziar bu wér-wér. waaw Mor loo defati nii noo ko waa ji noo ko daanee affaire bi daa gaaw. bawal bawal laa li ma wax ba rek force mu force mu dégg ay millions si man ah. barke Sëñ Fallou. loo teg loolu. xam man. man noo daane noo daane. ni ma ko daane. ni mu doon daane. waaw.